waaw comme ni ma la ko waxee rek Croix-Rouge département bu Mbacké seen njiit Alaaji Mbaye Sall di président comité départemental bu Mbacké day faral di de organiser jotaay yu mel nii bii mooy ñaareelu édition ñu koy def muy ñaax askan wi ñaax population bi ngir su nematee ci accident ñoo xam ni ñuy réagir ren nag ñu def ko d'une manière assez euh, importante mooy ñu invité suñu mbokk yi SAMU yi invité suñu mbokk sapeurs-pompiers yi mais invité comité national invité le projet invité les autres formateurs au niveau national Thiès ñëw na Dakar ñëw na Diourbel ñëw na yëpp invité ñëw nan ànd kook les secours de Touba ak de Mbacké pour ñu wax askanu Mbacké ak askanu Touba su accident amee lan jëf moo njëkk pour askan bi fa njëkk a yem nu muy woowee sapeur nu muy woowee sami nu muy alerte nu muy protéger woo ban geste la njëkk a def ngir sauver nit ki en attendant ñi nga xam ne moom la seen xam-xam màcc mbir mi mën na ñëw ci waxtu wi. looloo war tey ñu ànd ak département Mbacké ànd ak Croix-Rouge sénégalaise njiital suñu président ànd ak suñu partenaires yëpp yooyu ma la wax ak les formateurs de niveau national ñu ñëw toog fi teew bien sûr yombul waaye am na njëriñ dana geste de premier secours bul xeeb loo ci man tey suñu la jàngalee tey dañuy arrêté nàcc nàcc mu ndaw doy na soo liggéey nga xam ku am malaise noo koy defal doy na soo liggéey ku tàggale kook sagom di noyyi baax na su ëllëgee kuy miir baax na ngay dem ba ku am xool bu taxaw ku am noyyi gu taxaw ku am damm dam ku am euh, vraiment loxo bu dagg ainsi de suite kon baax na baax goo xam te bi loo ci xam mu néew wala mu bari am na njëriñ te wallu sax baax na nga xam ko aaru pour su accident amee ba beneen géyee du am baax na ak yeneen yeneen moo tax dañuy ñaax askanu Mbàkke Touba ak bépp doomu aadama bu nekk Sénégal ku ci nekk fexee la jege ji sapeur jege famille jege croix rouge pour ñu gën laa tàggat ci ni ni xetti doomu aadama ci kër ga ci mbedd mi ci biir bu kaay yi ak fépp foo xam ne nii ñoo ngi fay daje mbooloo ngi fay daje. soo gisee accident yu bëree baree baree bëri ay ñu bëri di ca faatu li koy waral mooy yéex teew ak ñi seen xam-xam màcc ci loolu su sapeur njëkk na teew ca waxtu wa wala sami wala croix rouge mën naa waaye ña fay toog di seetaan ay profil lan mooy amuñu xam-xam ngir xeetali filmer leen fay nekk foto yuuxu ak jaxasoog jaaxle léegi moo tax kon geste premier secours day loo xam te ne bii mënut a ñàkk ci askan wi nit la ko war a am kër gu daa war a am ab entreprise bu ne

parce que depuis que buñ fi ñëwee ba tey gis nañ ne ña nga xam ne ñoom ñoo ŋànk activité bi dañ ko doxal mais doxal bi li ci gën a am solo mooy ña koy doxal da ngay xam ni ñii la ñuy wax xam nañ ko mën nañ ko. te it yaatal nañu ndax yaatal bokk na ci nga bokk ak ay nit béréb ngay def dara nga leen kaay leen ñu toog ñu waxtaan te ba ñuy waxtaan kaay leen ñu nasandoo kaay leen ñu defandoo suñu paree kaay leen ñu xayma ba xam fa ñu nekk lañ fa def ndax dox na ndax doxul lan lañ war a mën a yokk te loolu dama siy remercier surtout le commandant des sapeurs pompiers ak national parce que démb ñoo nekk noo woon ensemble. alors activité bi dox doxal nañ ko doxal nañ ko ci anam yi gën ci anam rafet na trop ndax liñ fi fekk mooy ña doon secourir ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci difficulté. ña doon def wane nañu ne ña leen doon jàngal lañ leen doon jàngal teg nañ ko ci loo xam ne mooy téere téere nag mooy xaw mooy loo xam ne dañ ko tënk buñ ko nag tënkee nag ñu am ñañ ca formé ñañ ca formé dem am ñoo xam ne ñoom la ñuy dem forme ji ñañ doon formé ñoom ñoo doxalee ni ni mel ba ñu gis li nga xam ne moom lañ fa gis naam am na ay xat-xat war na am am na ci yoo xam ne war nañ ko mën a yokk ah le niveau central moom bu jotee rapport bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo def activité bi yónnee nañ ko ko ñoom dinañ ci statué wu. beneen bi ci am solo mooy tey jii fierté la ñu ñëw fekk Mbacké def lii ndax lii amoon na fii Thiès ah, amoon na ci yeneen zone tey dañuy bëgg aussi mu am ci yeneen zone ak amaat ci yeneen zone. tey nag euh, waa sa waa Croix-Rouge exactement dañ doon def benn exercice ñu invité woon pour ñu jël ci part surtout exercice yoo xamante ni. boo ko fekkee am na yoo xamante ni sapeur pompier bi da ciy am wàll sami da ciy am wàll ak ñeneen ak ñeneen donc dañ leen di féliciter pour initier yi initiation bu ñu ci jël vouloir bu bëgg sensibiliser la population surtout et bëgg ñoo imprégner surtout pour ñoom lu ñu mën a def fan la ñu mën a taxaw ak fan la ñu mën a jàppale en tout cas ñu leen di féliciter davantage et di leen wax ni exercice c'est toujours comme ça et puis day day day am njëriñ ñu koy def parce que day tax ñoom ñu xam lan lañ mën ak lan mooy seen difficulté ak lan lañ koy mën a consolider surtout. exactement collaboration bi moom fi la la nekkoon et day gën a dañ koy gën a consolider surtout en tout cas on est avec ñoom. Euh, xew-xew yu mel nii def ci am solo lool Samy apporté ci euh, def ci contribution euh, un pour sensibiliser population bi ci rôle Samy mais aussi permettre population bi ñu ñime Samy xam aussi lan mooy liggéeyam bu baax a baax waaye tamit aider tamit les organisateurs ci seen travail ñoom aussi à travers la Croix-Rouge aussi les sapeurs-pompiers collaboration bi ñuy bi ñu bi bi am entre nou donc mu mën a gën a dëgër euh, ñu mën a apporter à la population l'aide qu'il faut euh, pour que ñun ñëpp main dans la mais ñu mën a liggéey euh, dans de bonnes conditions ñoo ñëwee daal wax dëgg yàlla tiitoon naa wax dëgg yàlla amoon naa ci tiit lool ma yaakaar ne dëggantaan la mais li ngay def nii wax dëgg yàlla macha allah naa jëm kanam bàkk rasulullah ci rek suñu Tuubaa wax dëgg yàlla kontaan nañ wax dëgg yàlla li rafet na trop wax dëgg yàlla am naa lu ma ci lii gën a am daal est-ce ñu mën a xam parce que maa ñëw rek yaakaar ne dëggantaan la mais nekk di entraînement la pour xamal askan wi wax dëgg yàlla rafetlu trop wax dëgg yàlla. waaw am na lu ma ci xam nag waaw am na lu ma ci xam parce que jàng naa parce que. man nga ci gën a maîtriser. waaw am naa ci maîtrise nationale lu bëri laa wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla maîtrise naa lu bëri mënuma léeg-léeg mais mënuma xamaa ñu lu bëri wax dëgg yàlla.